barki alxuraanul karim kii laa bëgg kii la rek mais temps yi am na ku ñuy liggéey barki sëriñ Tuubaa dëkkate li ma daan ànd moom yow am na ku ñuy dasal ba non non am na ku ñuy liggéey. <laughs> barki Rasulaay Amar. billaay sëñ maam moo rek maa liggéey ak moom naka jekk suñu ànd bi suñu ànd bi ñu doon ànd neexul woon gars am na yen oustaz yu doon ruube si suuf billaay aw oustaz yi <laughs> non ah oustaz yi dañ may ma kii kii <laughs> daan message si suuf naan kii xamul dara xaw ma daan te nga ñëw si man barki démb wax naa leen dama leen a dama leen a posé benn question ba tey kenn réponse ul ñii na eh, ah kii naan maa ngi dama voyagé kii naan ma kii wa Omar barki alxuraanul karim aka ay mbàkke bàll dama ne leen nit su deewee ah ba ñu suul ko ñim fa fekk ñim fa fekk est-ce que dinañ nuyoo ataaya ana waa àdduna waaye yow an sa soxna si foo ko bàyyi waaye yow an sa jabar gi est-ce que am relation boobu est-ce que am suuf loolu laa kenn nanguwuma tontu. non non soo su non non di bis wax du egg de si suuf laa wax. bàmmeel loolu am fa. amoo droit nuyoo. yow waaw suxra ak kubra. suxra mooy bu ndaw bi bu ñu yooyu. Ya ilaha ne jàll ca jumaa ja ba suñu borom defal la texe nga tàbbi aljana mën nga faa gis ay góor mais bàmmeel moom amul ataay amul xarit amul dëkkandoo yomal xiyam def man kon su ma du ci bàmmeel la ñuy gisante duñu gisante sa ba man sama bopp laay tal ak samay jëf gis nga bàmmeel moom lu la waay man a wax. Ah. lu dul say jëf. waaw ak malaaka yi lay laaj. waaw ak yàlla suñu borom. du fekk ah. ak yàlla suñu borom mi ñu wax ni bu nit ki duggee ci biir bàmmeelam yàlla dana wéetoog moom. Mm. ba mu ko naan yàlla xanaa bindoo ñeneen dem ca xanaa man rek nga bind. Ah. ñu dul ñett ñii duñ la fekk ci biir bàmmeel. kon de yàlla bu ma gaaw a dee kon de xam maa doon ñaan yàlla naa dee fekk sama xarit yi yow ma namm. ah fexe ba daa am ñoo xamante dañoo gaa gaañu samay xarit lañ dama leen bëggoon dem gisi nuyu leen parce que am na oustaz bu ma ne dig gis nuyoon rek ñoom non sa xarit bu dem euh, Abidjan bi donc boo demee boo moytuwul du ngeen gisee te àdduna la man ñi ma jot a vocal naa vocal comme ça ñu lañ ma wax yéen ngeen ma ngeen ma di ngeen gisee ataaya ak yëpp su su ñi ma doon suul suñu demee. ñu vocal dañoo faatu ba pare. def non non dañ ma vocal bi ma def damaa def question bi partagé ko am ñu ma vocal ne ma so dewe di ngelen su ñëpp demee. suñ la suulee ba pare ba ñëpp dem di ngeen diñu. xam nga fan ngay gisee ak ñoom. ah stage. allahu akbar da booba doo leen tal duñ la tal kenn ku nekk sa bopp ngay. kenn doo nga fay tal boppam mu yónnee tamit alayhi salaatu wasalaam. kon de gor lu wat parce que kanam. bu ngeen duggee aljina yeen ñepp nak mom man ngeen a mom mm. ko bëgg mu doon sa dëkkandoo rek doon sa dëkkandoo ko bëggee gis dang koy gis waye digënté bi daal moom loolu amul. waaw yalla tamit waroon def lo nag ah. lii moo nekk téere yàlla waru woon def loolu tamit ah. ah yàlla li mu war a def rek lay def. lépp waru woon def loolu tamit waaye ah. ah lu def rek daal yàlla moom bu ne la dinaa la dugal a nga faatu mu dugal la sawara it la mu dara dañu ci. yàlla bu ma dee ndax bu bëgg rek loolu mooy leen faxaalu li maa yurit mooy def mooy koo xam ne ku ko soob rek lay def te mu def noonu la. kim raay noonu la kim dundal noonu la kim yóbbu sawara noonu la kim yóbbu àjjana noonu link bi ma nekk daal mooy lislaam. Ah. ah ñoom tamit si lislaam lañ nekk. maa ngi woor maa ngi tudd yàlla. si bu ma amee lu ma naan tata asaka ma naan ko bu ma waree dem màkk dem. ñoom tamit si liste bi lañ nekk de maa ngi digle lu baax maa ngi tere lu bon lii daal mooy link bi ma jàppee link man. dañuy fotow suñu dem màkk ah dugg benn avion di sinap di partagé yow moom euh, gisuñu la si si kii bokkal nag garaawul. bokkal nag foo may seet ba gis ma ko. ah te sëñ Bamba. sëñ Touba daal boo ma fa seetee gis ma waaye lu dul loolu daal mën nga na caa bañ a gis. ah ñoom ñoom ñooñu seen bi li mu neexee. ñoom ñu ngi ci lislaam maa ngi ci lislaam loolu mooy li am solo mbay fayal sa téléphone bi <laughs> munoo Moussa Kawaani ba wax loo ma lu ma war a wax eh, ba ba ba ren ren tamit kenn gisuloo carte générale fexeel ba daaw xaw ma daaw kenn gisuloo rek carte générale waaw. léegi ren nag damaa bëgg. waaye yaa ngi doon dégg RFM. ah mais dégg naa dañ laa woo nga bañ. nga ni duñu doo toog ak ñoom si plateau bi lan moo tax loolu. Mbaye ah. <laughs> information exclusivité ma jox la ko. Ah. nekkuma TFM RFM laa nekk. ah mais da nga daan nekk foofu. nekkoo ma de nekkuma TFM RFM laa nekk. gànna Mbasare da daan ñëw nga toog keneen day ñëw nga toog waaye tey bee moom <laughs> daaw moom. yàlla ñu yàlla may yàndam jàmm dégg nga <laughs> ba suba jàmm. dossier oustaz yi yooyu Omar. man Aliou Aliou jox ko Ndiaye. wala xarit nga. man ak yow ak oustaz Mouhamadou Fall ak Mouhamed Mbaye damaa bëgg ñu ñu kii ak oustaz Pape ak ñu toog ñu waxtaan. waaw RFM rek du kii du du du animé waaw. waaw TFM loolu la ñëpp xamee waaw suñu demee ba nga gedd foofu TFM am na xew waaw lan moo sa problème boobu man man man lan moo sa problème si télé bi man lan moo ma jaaxal buuba ku baax la ku la bëgg la njega ku baax la ku la bëgg la si usaasi la rek <laughs> ah émission bu gën a mag nga of ko ni bëggatuma parce que ñi fay toog oustaz yi fay toog mënuñu doo toog ñoom. sama ah, bi yàlla baax yàlla jaamu yàgg. Ah, yàlla jaamu yàgg mais oustaz am nga xaar oto bi damaa koy dégg oto bi maa ngi dégg oto bees bi téléphone bii. un million lay jar huit cent jëndal nañ ma ko keroog. kii euh, moom ko jël kii euh, moom ko jël xaaral sama xarit la naa ko peut ku baax la Eva solution moom ma ko jëndal tel bu 850 bi. ah sama xarit naa jëndal la ko waaw jëndal nga mu ngi koy def. waaw man de bàyyi woon dama waaye maa nga fa ma nekkoon ba <laughs> maa ngi baax maa ngi tane maa ngi bëgg lu baax. naa ne moom maa bàyyi woon nag ñeneen ñi. ñeneen na ñeneen ñi dañoo xew. ñun nag moom dañoo dañoo doxul ci parce que déréti sëñ Tuubaa daw fii ñun doxuñu ci doxuñu ci xew ak xew ci lislaam daal la ñu dox ci diine. ah mais tamit oustaz tamit. li wax nii parce que yàlla maa mën a ruube. <laughs> Oustaz Modou na la dégg nga waaw ah, <laughs> dem na màq nag dégg nga. maa nuyu di baax la. <laughs> waaw rafet jikko la. Ah. sama xarit la. waaw am diine la am lislaam la. ku baax la ku ah. sell la. mais mais yéen a ngi déggante téléphone. bu ñu dajee rafet di ko sant. waaw ku baax la. ah laa na ci xam-xamam bu ñëpp defoon ni moom. kenn dootu réer. ah mais mais la moo tax ngeen wax du ngeen déggante. mbay li ma la wax nii mënu ma ko weesu de sant naa ko gërëm naa ko ku baax la ku sel la nitu yàlla taalibe bi Tijaan piir la ku bëgg Maodo la. ku baax la itam mais nag man dama bëgg. ngeen di demalante di damaa bëgg ngeen demalante di diggalante ngeen def ay vidéo xam nga di salañ yooyu laa bëgg. ayo yooyu moom dañ koy bàyyee ak yéen. xam nga aw ma jot Modou Fall amul jot. koy def ak oustaz wax de. ah man aw ma jot Modou Fall amul jot. mais mi koy def ak oustaz Pape ak Assane. yow kese moom yow moom yow. wa yow barki eh, eh, mais barki man cer mais cer mais mais kañ nga ñëw waali moom dafa ne la dara dara dara fu la neex dem fu la neex ñëw nga nekk sa olala oh eh waaw waaw cer cer cer cer eh cer <laughs> eh, eh, waaw ana ana ana waali ah, lay ñëw suba ah, gannaaw suba ah gars yi namu nañ foog nag mais jaar mais seen seen Bercy bi nag bëri bëri na ay coow de. ah këcëb li mu wax kii. këcëb day fen rek fen